ñu xëy na li indi loolu parce que diversion la mooy pëndal coow am fii nga bëgg ñu bañ ko wax nga pëndal feneen daan waaw parce que am na ñaari nit yu ñu korom ci conseil constitutionnel. deux juges. deux juges yoo xam ne dañ leen ger moo indi loolu te loolu sax mën nañ ko mën nañ ko seetaat bu fekkoon na loolu lu tax liste bi njëkk génn ñaari juges yooyu ñu ngi woon ci biir. Karim Wade retenu nañu. muy Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane ngi woon ci biir no mhm. Karim Wade est-ce que boobu nekkul woon ci liste bi. mu ngi ci woon ci première vague bi. ana ñu woon ñooñu bu fekkoon nañ leen korom kon lu tax ñu bàyyi mu jaar foofu c'est pas cohérent léegi ñu waa xanaa ci diggante ko lañ leen gerte rek bu gerte da ngay commencer début bi looy xaar ba mu jaar première. première obstacle première vague ngay xaar deuxième vague. c'est pas cohérent donc pëndal la diversion la. en plus lu tax mu nekk diversion ba tey fi ñu toog nii wanewuñ fi le plus petit début de preuve et c'est très grave c'est très grave waxuma sax présomption ab tuumaal même ku ñu jàpp tey yóbbu la tribunal tant que àtte wuñ dañu la jàppale da nga innocent loolu mooy présomption d'innocence donc mënuñu sukkandiku ci ay allégation yoo xam ne amul dara lu ko firndeel ba tey Sénégal nga xam ne lu kii ñu gën kayit wane amul dara lu ko firndeel ñu reposé si loolu naan parce que dañu guerre léegi ñu ne nañ def commission d'enquête ba tey. ils disent nañ def commission d'enquête que dinañu présenter les preuves mais aujourd'hui on ne parle plus de cette commission d'enquête moo tax ma ne la c'était du c'était diversion le bluff la woon c'est un montage artificiel pour ne dëkk bi dafa am yëngatu mooy li président wax ak li waa PDS wax daan ne way y conflit entre entre les institutions le dysfonction mais institutions yi ban conflit moo am ba ba ba ba bërk démb mu ngi voté non justice bi fonctionné président jëlu fi décret ana ana ana ana euh, euh, kii crise institutionnelle dañ ko fabriqué montage bu ñu fabriqué pour mën a indi lii ñu indi tey mooy report bi ñu imposé ñun ñu bëgg imposé parce que jàpp ma ne loolu imposé dina dina jàpp waaw donc c'était du bluff dañu créer une situation artificielle mais mais mais est-ce que est-ce que nekk ñu di rompre benn lien de confiance ak benn pacte de stabilité parce que on parle de corruption de deux juges constitutionnels des sages du Conseil constitutionnel. présomption. Voilà, on, on, on les accuse d'avoir été corrompus. On parle des juges, on accuse et le, le, le, le, le Premier ministre Amadouba. Et dans l'exposé des motifs, ñoom waa PDS tudduñu le Premier ministre, ils ont juste parlé de, de, de, de présomption de, de, de corruption. c'est-à-dire est-ce que ce pas une première dangereuse un précédent très, dangereux c'est li tax mu dangereux mooy li tax mu dangereux c'est parce que Macky moo ko jox crédit parce que Macky Wade Macky Sall moo jox crédit affaire boobu un président de la République ak sa responsable ni mu tey loo sukkandiku si waxu caaxaan yooyu bu amul présomption bu wóor pour ne y a une crise institutionnelle parce que crise institutionnelle xam nañ mooy institutions yi fonctionné wuñ évoqué nañ sax crise en l'Assemblée et le Conseil li tubaab di wax y a pas d'interaction institutionnelle diggante Assemblée ak Conseil jotewuñu dara amul fenn fu mu am interaction am na interaction institutionnelle entre exécutif ak législatif parce que l'exécutif day dugal projet de loi euh, législatif war woote dans telles conditions foofu mën na am blocage parce qu'il y a une interaction institutionnelle amul benn interaction institutionnelle en l'Assemblée nationale et la justice ba ñu naan dafa am une crise institutionnelle c'est fabriqué de toutes pièces parce que li ñu bëggoon mooy créer les conditions yu ñu sukkandiku ne élection yi mënul am loolu c'était son objectif mais c'est délibéré c'est organisé c'est organisé